Pape Alé Niang di journaliste Dakar Matin moom mi nga xam ne jàppoon nañu ko ci lu ñeel dossier administratif yoo xam ne daf ko daal di publier woon moom Pape Alé Niang nag ci fàttali daal di woon nañ ko mayoon ak liberté provisoire ci naka noonee mu ñu gisaat ko ci ab live xam ne ñoom dañu jàpp ni loolu ma fa doon def dañ ko koy tere ba waral ñu daal di koy dellowaatoon ca nga xam ne moom moo di ca prison moom Pape Alé démb daal di woon nañ ko évacuer ca fa nga xam ne moom moo di hôpital principal ginnaaw ba ñu nemmeekoon ni dafa déclarer grève de la faim ba nga xam ne doon na ko amal loolee waral nag ak wér-gu-yaramam daal di taggatémbe loolu ci jamono bi ñu toll nii nag daal di nañu jot ay information yoo xam ne ñi ngi xamal ni kooku di Pape Alé Niang daal di nañu koy libéré ginnaaw ba mu nekkee ca état bu doyo doy waar moom Pape Alé Niang sax dañu ni dañ ko yóbbu woon ca fa nga xam ne moom moo di ca urgence daka noonee nag daal di nañ rek moom libéré dañ ko ci jamono bi ñu toll nii internet yi ñu seetaan ci 5M TV Sénégal lii moo fi gënoon a fës ci ay xibaar ñu leen wax ngeen di abonné ci sunu chaîne saa su